mbokki déglukat yi ñu ngi leen di dalal ci rajo Takaful waxtaan bi nu duppee waxtu jàmm ki leen koy digtal di programme bi di jàppale askan bi ci wàllu koom ñu tuddee ko Takaful waxtaan bi weesu bi xuj a demee seeti kaltum mi nga xamante ni doomam bu ndaw bi Badara dafa ànd ak feebaru xiiboon boobu ak léegi ay weer weesu noonu ci ndimbalu xuj ak docteur yi Badara bu ndaw mucc na xuj ci boppam yëgal na waa dëkk bi dafa nar a bokk ci ñii di xëccoo mairie bi ba jongante tàmbali na mbaaxam ak taxawaayam ci commune bi tax na ba ñu bari moom nanu àndal rawatina jigéen commune bi waaye Lamine meeru dëkk bi taxaw na temm ngir faluwaat ci dëkk bii di Thiénou fenn ci biir Mauritanie xujja ak njabootam noo fa nekk ñu netti leen seen jaar-jaar xujja déet dama juum madame le maire laa bëggoon wax <laughs> yaa ngi fi. waaw waaw maa ngi fi. waaw loo dal yaa ngi mel na ku jaaxle. déedéet du dara dama xaw a tiit rek tuuti ci daje ëllëg bi mosuma jël kàddu ci kanamu mbooloom rax ci dolli xawuma lan laay wax ci sama discours lii gëw ma de dinaa ko mën. lenn de wóor na ma lii mën nga ko soo jëlee kàddu nit ñi dinañu la déglu dinañu la déglu ndax am nga yitte ci ñoom am nga yitte seen i jafe-jafe. waxuloo ngir sa jëmm te itam doo leen dig loo mënul mel na Lamine yow da ngay waxtaan ak ñoom ngir saafar seen i jafe-jafe loolu ñoom xam nañu ko lii moo tax ñu lay jàppale bu baax di nga gis sa daje ëllëg bi lépp dina baax dina jaar yoon danga nga war a gëm sa bopp en tout cas man wóolu naa la. jërëjëf ma Demba lépp dina baax. li am solo mooy dama war a xalaat bu baax. lan laay tàmbalee sama waxtaan. waa ma waxtaan nga ci ak Birane. déedéet. yaay yaay yaay xam naa liggéey bi ma bëgg a def bu ma màggee. ba nuy jàngi tey ci suba. gis nañu benn oto bu yàqu ci yoon bi. kon dimbali ma rek Modou man aw ma jot léegi dama am ay mbir am solo yi ma war a def. dama am daje bu am solo ëllëg ci jàmm. te war naa xalaat bu baax ci kàddu yi ma war a wax. man itam li ma la bëgg a wax am na solo de. déglu ma Modou dafa doy da nga dem a foyee ak say rak. bi nga tàmbalee def politique ak léegi. nangoo too ma déglu. te dootoo toog ak man du yàgg. waa yow Modou Modou desul fii Modou Modou jaaral fii. ah waaw moom de mel ko mer lool. waaw man nag lan laa si man waaw moo noonu nga ko déglu rek nga waxtaan ak moom. yow du yaa may fàttali saa su nekk. ni dañu war a waxtaan ak xale yi rawatina ba nu gënee nekk gone wecci ak ñoom xalaat di leen ñaax nuy wax te di bàyyi xel saa su nekk sunu amee soxla ak waaw waaw dëgg la wante jamono ji ñu toll dama amul jot lool warul tax sunu njaboot gi noonu war ëpp ëppal solo lu mën ci doon wax nga dëgg dinaa waxtaan ak moom yaakaar naa ni si bis ba daa tiit de <laughs> waaw <laughs> yow demal rek man ngay kekkantoo baax na ginnaaw bi ñu ko wëree fu nekk xujjee mu jën a gis Modou si bërëb bi xale yi di fooye di football. waaw man wër naa la lu yàgg laata ma lay gis. yoo xam ne ak xale yi léegi daal nangoo wax ak man. yaakaar naa ne am na li mu bëggoon wax. Hmm. bëggatoo wax ak yow. Hmm. xaaral ma toog sa wet. Hmm. Modou déglu ma rek jàppale mi maa ngi jégalu bu baax waroon naa la déglu ndax amoon na la solo xam nga jamono yu ñu toll dama jàpp loolu si jongante yu ñu nekk am nga dëgg ma leen xel yow ak say rakk sàggane naa leen lool man yéen doomu laa am. yéen a tax ma bëgg a bokk ci jongante yi ndax ëllëg ngeen mën a dund dund bu yewoon yaa ngi ma dégg de. waaw yaay dégg naa la. yow tulool rek nga ma bëggoon wax ëllëg ci biir soo màggee. dama bëgg a doon mécanicien oto. ah bon ah loolu lu baax la. comme xam nga li ngay bëgg def ëllëg ci biir. dinañu war a gindi ci luñ la tànnal. waaw lu tax nga tànn bii métier. ba ñuy dem jàngi tey ci suba. gis nañu benn oto bu yàqu ci yoon bi. borom oto bi mi ma xalaat ni su ma mënoon defar oto kon naa ko jàppale. dëgg la lu am solo la mécaniciens yi defar oto yi du jàppale nit ñi bu baax a baax. waaw loolu laa war a def ngir ma nekk mécanicien. ah déedéet loolu da xaw ma si dara yaakaar naa ni danga war a jàng njàng yu kawe waaye da xaw ma yan xeeti njàng lay doon xaar am naa si xalaat dañ ci war a waxtaan ak seen nijaay Fallou moom dawalkatu oto la war naa xam nan nga war a def. dina ma jël si ëllëg ngir yóbbu ma sa ndaje ba su boobaa dinaa ko laaj. nangu naa yaay rax si dolli tonton Fallou saa su nekk daf may reetaanloo. dëgg la tonton Fallou dafa reetaandu waaw ma ni mën nga maa jéggal sama ñàkk jot ci fan yi weesu ci yow. waaw yaay waaye dig ma leen soo gañee élection yi dinga nga woy duñu toppatoo man ak nëmb ak mbay. waaw dig naa la ko. ci ëllëg sa ci suba si kanamu këram xujje ak góor gi biraan ñu ngi xaar tonton Fallou ngir mu yóbbu leen si daje bu rëy bi bi nar a am si bërëb bii di waxtu jàmm. xaw ma laa leen war a wax ci daje bi yéeg naa ne Lamine moom doxal ñaar mën na leen dig nekk nag dégg na leen sax nag dina leen tabaxal benn bërëbu fajukaay laata at bi di jeex te nit ñi gëm nañ yaa ngi dégg bu baax. Lamine ba mu nekkee maire yàgg na te mosu fee def dara. ngir yéwénal mbir yi bërëbu fajukaay bu mu leen dig gaw ma ni mën naa ne nit ñi dofunu loolu ump leen yow xujja nit ñi naw na la ndaxte dangaa dëggu te jub doo leen fen looloo tax nu jox la cër bu baax mën naa nekk waaye dafa mel ni Lamine dig yum leen dig neex na leen nit ñi soxla nu nu am yaakaar si ëllëg yu gën looloo am jàmm nga fanaane madame le maire. war ngeen bàyyi ni ngeen may def yow ak sa mag ma dem. lii war nga koo miin nag. acca yéeg leen ñu dem. Fallou xaaral balaa ngay dem. bëgg naa nga waxtaan tuuti ak sa jarbaat Moodu. waxtaan si lan. ah moom de nee na dafa bëgg nekk mécanicien oto. ma xalaat ni yow yaa ci gën a jékk ngir waxtaan ak moom. wan ko yoon bu war a jaar. Oh, xaw ma loolu wóor na. waaye moom juróom-ñetti at dong la am xamagul li mu bëgg. moom am na juróom-ñetti at juróom-ñetti at teelul si moom xale yi dañoo war a waxtaan ak ñoom di bàyyi xel si seen xalaat di leen jox cër mën na am mu soppi xalaat fii ak diir waaye fu ñu toll nii lii la bëgg a def ñun waa jur yi dañoo war a déglu suñu ay njaboot bàyyi xel si seen ay bëgg-bëgg ngir ñu mën leen ñaax waaye itamit jox leen ay tontu laaj yu ñuy laaj yi yaakaaroo ko. Hmm, xaw ma lu wóor la. ah dama la ko ñaan de kon bëgg la madame la maire wàccal sa oto nga dem waxtaan ak Modou ci sa jaar jaar rax sa dolli ko la sopp la man bëgg naa ko lool sa doom ji waa kon maa ngi dem xool ndegam mën naa tontu si laaj yu ma nar a laaj jërëjëf Fallou yaa ci nijaay yi waaw kay noonu la nga ne lan loo wax yaakaar naa léegi am nga li nga war a waxtaane si sa ndaje bi jëliwuma li nga bëgg a wax Birane waaw kay la nga jot a wax léegi xale yi nooy sunu ëllëg ñooy sunu yaakaar kon sunu bëggee sunu ëllëg xale yi noo war a doon sunu yitte mm-hmm. waaw li ngay wax ne amal na ko solo lool yokkal nanga nga waxtaanee àq ak yelleefu xale yi xam gun leen war a xam solo gun war a am te di ko jëfe si askan wi mën ngaa waxtaanee si àq gi xale yi am ci war a am tur war a am fi nu bokk àq gi nu am sin war leen sàmm aar leen ci liggéey yu metti seen àq si war a faju rawatina ngone yi am nañu àq am seen xalaati bopp te di ko fésal am nañu itam àq bokk ci itte askan wi waaye yow aay nga de ma ni lépp sa xalaat la yow àq ak yelleef xale yi amal na leen solo ngir ñu mën a mucc ngir seen yokkute ak seen naataange waaye itamit aar leen ci bépp xeetu métintal commune bi dafa war a sàmmonteel ak àq ak yelleefu xale yi li nga xamante ne àdduna bi yëpp ñoo ci mànkoo waaye itamit di ko jëfee su ko defee ñu mën a ànd defar suñu ëllëg ëllëg bi nga xamante ni moom lañu ñu suñu njaboot. waaw kay noonu la. ndaw yi itamit dañoo war a yeewu ci seen ak ak yelleef dina tax ñu gën a gëm seen bopp. waaye itamit am sañ-sañ dugal seen loxo si naataange askan wi. mel na ni Moodu ndaw ñi soxla nañu nu déglu leen. te boole leen ci bépp dogal bu leen itteel. kujja gaawal lan la lu xew. war nga ñëw si nu mu gënee gaaw si ndaje ma Lamine ngi fii di may ñëpp ay di la ŋaaña. lii mënul ne saay saay bu amul lu muy seet dara jomb ko. mbokki déglukat yi. di ngeen mën a topp nekkinu xujja njabootam si waxtaan bii di ñëw si waxtu jàmm si rajo Takaful dong fii ba balaa booba nekk nañ si jàmm